julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaan yàlla dolli ne gërëmal sunu sëriñ Cheikh al Xadim ak mboolem awliyaullah yëpp ñaanal Cheikh Mouhamadul Muntaqa yàlla yàggal ko fi lool te wéral ko ba mu mottali ay naalam moog ay jëwriñam ak mboolem jullit ñëpp bu loolu weesoo sëriñ Fallu dafa wax ni ñoom de cant gi nga xam ni war nañ koo sant seen borom lottu nañ ci te ñi ñu koy santal muy seen mag ñi sancoon barab bii lott nañ ci ndax ñoom day wóor na la ni wóor na leen ni seen mag ña lañu ñu àndewoon ak Cheikh Mouhamadul Bachir tey ku leen yeewoon seen xel dana gën a dal danañu gën a sant bu baax a baax a baax ndax Baye sëriñ jaw de fii la sëriñ Bassirou taxawoon ci teen bi ñaa ni ko nanga fi toog lépp dana la fi fekk teen bi de dafa wexoon ba sëriñ Basiru ñaanee ndox mi neex ñu yaakaar ni loolu mooy lépp dana la fi fekk ñu ni alhamdulillah ñu toog tuuti ñu indi indi leen xandal gi nga xam ni jigéen ñu jukkeetuñ ndox mi day sëkk mbànd mi di fees ñu ni xam naa lii lii la sëriñ Basiru doon wax ñu toog tuuti tarawo bi ñëw waxuma la daaru jaw waaye tund wi yëpp ñoo leen di jox ndox ñu ni lii nag la sëriñ Basiru doon wax tey lépp mat na waaye teguñu ci tuuti daara yi alxuraan jaa ngi nii li taxoon ñu sanc dëkk bi tey wuteetuñu fenn fu ñuy yóbbu seen doom ñu di leen jàngaleel tabax nañ daara ji ñu ni xam naa lii la sëriñ Basiru doon wax tey nag Mbàkke jumaa jaa ngi nii mat na sëkk sëtu sëriñ basiiru ñëw jiite ko sëti sëriñ Basiru yi nekk fi sëti Serigne Touba yi nekk fi kon nag dañoo yaakaar ni xam naa sax matagul waaye ñoom de seen xel dal na xam nañ ni la leen sëñ Bassirou diggoon lépp am nañu ko Mbàkke ñoom nag ñuy santal seen mag ñooñu Cheikh Mouhamadul Bachir di sant Cheikh Mouhamadul Moustapha waaye di sant Serigne Mountakha mii fi nekk waaye di sant seen jëwriñ ji xam ni tey moo yor nosub daaru jaw muy Cheikh Moussa Mbàkke yàlla na fi yàgg te wér Mbàkke Cheikh Abdoul Ahad waa daaru jëw gépp a ngi lay sant ñi ngi lay ñaanal yàlla yàggal la fi te wéral la nga yàgg ànd ak sa mag ji ba lépp lu mu yéene ci liggéeyal Cheikh Moustapha Bassirou Mbacké seen waajur wa nga xam ni jàmbaari lislaam la ubbi na ay jumaa yu kenn xam li mu def moom dong ko ma sa def ci àddina li mu ubbi ci ay jumaa te tabaxal ko boppam amul kenn koo xam ni ci taarix mën nañoo xam ni def na lu toll noonu ba ji ci la bokk kon Mbacké ñu ngi lay seereel seenu cant seeni ngërëm ci sa mag ju baax ji mu Moussa Mbacké waaye yéen ñii di ay rakkam ñu di la seereel yitam cant gu ñu sant sa rakk ju baax jii nga xam ni moo leen fi nekkal wuuti leen fi lépp loo xam ni yéen a nga ko war a def mu defal leen ko fii ci tund wi muy mu Modou Kara Mbacké mii ñoom nag dañoo yaakaar ni sëñ Modou Kara moom ñoom dong lañ ko fi indil ndax dëkk bii day defu ko muy ab dëkk boo xam ni dafa beru daf ko boole ci ay wanagam day toog ba takkusaan mu doxantu ndànk ñëw fi ni leen yéen laa yéen laa doon siyaare si lépp lu ñu am itam lu man di doon sëñ Modou Kara dana ca taxaw nam ca war a taxawee kon loolu mooy li ñu lay njëkk a seereel Mbàkke ci sant gu ñu sant sëriñ Modou Kara ak ñaan yu koy ñaanal di la seereel ni taxawaayam rafet na lool ci dëkk bi loolu sëriñ Fallou moom a ko wax ak njaboot gépp waaye di la seereel nag cant gu ñu sant kilifa yi diine yëpp sëriñ Bassirou Mbàkke ngi nii fii la nekkoon ci Daaru Jaw lu ne mu def ko fi ci lu baax ba fii nu toll lépp lu daaru jaw xew le xewle Cheikh ba Bachir day taxaw lu ko ca war mu def ko moom itam ñu di la seereel cant gu ñu ko sant ak ñaan yu ñu koy ñaanal yàlla guddal fanam yàggal ko fi te wéral ko. maa ngi wax ne ba ma xamee ci moom mu dale na mu dala dale nu ko mu tàmbalee naafila ñaari isib ak genn wàll ak léegi lu mu néew ne mat na ñaar fukki at ak juróom kon kuy ku alxuraan ñor la ku ci yëngu la nee na xam gum xam ci moom diine ñor ko diine ñor. ak taxawegum ciy taxawe nee na moo tax mu tànn ko lii lu mu ci munta dem te muy cëru boppam boo xam ne moo fa war a teewal boppam mu tànn ko yebal ko fa ngir mu teewal ko fa kon nee na bu magam sawaroon di sëñ moo dab laay xëy na mooy ñëw waaye nee na moom mii la wóotal te loola ndax nu ko magam mane moom moom mi mu war ko ko ne mane mane na ko noona wala lu raw loola kon nee na moo tax mu tànn ko yebal ko fi ndax nee na dëkk bii day dëkku boppam boo xam ne lu ñu fiy taxawee moo ci war a dikkal boppam su ci munta dikkal boppam ku ci yem moom moo ko ci war a teewal moo tax mu yebal ko mu ànd ak man ñu fekk fi sëriñ moo du Kara muy rakkam nekkal leen ci tund wi ñu teewal ko ci barab bii nee na mi ngi ciy sant yàlla bu baax di ci sant waa dëkk bi ndax nee na moom bu sañoon fu sëriñ ba Basiru doon dara sëriñ mu sewaa doon dara at mu ne day yokk ba tund wépp xam ne ma ngay yokku te nee na ku ne xam ne ne lii ak yokk la yàlla ku yàlla gën a yokk te gën koo saxal nee na nag mu di leen gën a soññ nag ci wàllu taxawaayu diine bi ndax fi mu nekk day mel ne mboolem ñi dëkk ci tund wi sañatuñoo jullee fenn fu dul ci jumaa ji ajuma mel na ñu dëkk ci dëkk bi it sañatuñoo jullee ci seeni kër lu dul ci biir jumaa ji kon nee na loolu yi sas la woo xam ne ak yokkute la waaye day mel ne yokkute gu jurub coono lay doon waaye nee na cooro bi nag mooy li nga xam ne moo nuy julal jural texek tey ak ëllëg kon sëriñ bi nee na mi ngi leen di sant ci turu sëriñ Moussa di leen ñaanal kilifa yi nga xam ne ñoo dox ba taxawal lii ak njaboot gi ñu ko àndal ñoom ñëpp yàlla boo leen sàmm te yokku leen ba liñ ci yéene woon muy dundal lislaam ba di ko def yàlla defal leen ca lu kawe seen jor te fay leen ci it fay gu gu kawe njort nee na nag euh, ku ne xam na ne pay gu rafete ci am ndax yaar in lee ahsantum li anfusikum beneen bi mooy aljasaaw lihsaan illa lihsaan kon ku ne xam na ne jëf ju rafet ji fay gu rafet rekk ciy topp yàlla yàlla saxal ko ci njaboot gépp nag bañ jariñoo ko ba mu yegg ci sëriñ di ko jariñoo nee na bokki kilifa yi fi dajeel itam mi ngi leen di nuyu di leen jox seenu wàccuwaay di leen siyaare itam di leen xamal ne it lii ñoo ko bokk rahmatullahi taala sëriñ bee leen di nuyu bokki jullit yépp ne sëriñ Abdul Ahad nee na mi ngi leen di nuyu bu baax ak bokki taalu yi di leen ndokkeel ci jataay bu tedd bii di leen jot li itam cantug ay kilifaam di sunuy kilifa muy kilifaam sëriñ Moussa Mbakke yabal ko fii ci barab bii mu fekk fi bokkam yu tedd yii ku ci nekk ci ñoom mën a wuutu Serigne Touba ci barab bii ci wàll yépp aw kaw. waaye nee na moom aw sas wu rëy dal ci kawam. mooy kilifa gu tedd. mooy kilifa gu di kilifaam. dox diggante ak digganteem ak waajuram. doyloo ma. ko. sas ma sas wu rëy. sas ko sas wu rëy bett googu moo ko dal. yëg-yëg bu mu am ci jataay bi. sëriñ bi. ci diggante taalibe yi ak sëriñ bi. ak diggante sëriñ bi ak ñoom ñii ngeen doxale seen diggante ak diggante sëriñ bi ak ñoom ñii ñu doxale suñu diggante sëriñ bi. muy yëg-yëg boo xam ne. muy yëg-yëg boo xam ne. buñ ko séddoo. bu ñu ko séddoo. te dund ko te dund ko. dana doon soññ bu rëy ci noonu. doyloo gi taalibe doyloo gi taalibe yi doyloo Serigne Touba. ba amuñu beneen ilimaan bu dul moom nee na loolu moo rëy lool te rëy fa yàlla nag ndax lu tol nii ak daara ju tol nii ak liggéey bu tol nii ku ko liggéey ba noppi amoo ci benn xalaat lu dul xam ni kan ko defal mooy sëriñ bi nga yëggati ko teg ci loxol sëriñ bi lu ci diggante taalibe nee na loolu nag day lu xóot ci diggante taalibe ak sëriñam. waaye daa war a doon ab soññe bu rëy ci taalibe waaye daa war a doon ab soññee ci taalibe yi. ndax amuñu lu dul islaam. ndax amuñu lu mooy islaam. amuñu lu dul diine. lu mooy diine. sunu borom li mu ñu fi indee xam nañu ko. sunu borom li mu fi indee xam nañu ko. kenn ku ci ñun fas ko yéene. te kenn ku nekk ci ñun fas nañu ko yéene. waaye kenn ku ci taalibe yi. waaye kenn ku nekk ci taalibe yi. lottu nga sa digganteeg sa borom. lottu nga sa digganteeg sa borom. te umpule ko. te umpule ko. te la nga ci yéene nga gàttañ lu ca. te la nga ca yéene gàttañ lu nga ca. te nga yaakaar ni Serigne Touba mën na laa jottali lépp. nga yaakaar nag Serigne Touba mën na laa jottali lépp. loolu moo indi jataay loolu moo indi jataay bii. lu toll ni jàkka nag. lu toll ni jàkka nag. ku ko tabax muy jumaa. ku ko tabax muy jumaa. nga xam ne sa warugar la sa digganteeg sa borom. nga xam ni sa warugar la sa digganteeg sa borom. nga yëkkati ko joxe ko addiya nga yëkkati ko joxe ko addiya ba mel ni moomatoo ko ba mu mel ni moomatoo ko ba nga xam ne sëriñ ba mooy wut ku ko ba nga xam ni sëriñ ba mooy wut ku ko jullee xam nga ne la nga joxe rëy xam nga ni la nga joxe rëy na muy jàkk muy jàkk ji waaye loola day wane li ngeen diggante waaye loola nag day wane li dox seen diggante ak sëriñ bi jox naa la sama bopp ak àllaaxira te mooy jox naa la sama bopp àddina ak àllaaxira rëy na rëy goo xam ne rëy na rëy goo xam ni wax ku ne ku ko wax ku ne sa bopp. war ngaa waajal sa bopp. waajal sa jëmm. waajal sa jëmm. waajal say jëf. waajal say jëf. waajal sa pas-pas. waajal sa pas ngir sëriñ bi ngay jox sa bopp. ngir sëriñ bi ngay jox sa bopp. te loolu waajal googee nag. te lu waajal googee nag. ci lu mel nii. ci lu mel nii. barab bu mel nii. ci barab bu mel nii. ak jëf yu mel nii. ak jëf yu mel nii. ci lañ koy waajale. ci lañ koy waajale. nit amul lu ëpp boppam. nit amul lu ëpp boppam. amul lu nu ëppal Serigne Touba. te lu nu ëppal sëriñ Touba. kon nag kuy jox Serigne Touba ku nekk. kon nag kuy jox Serigne Touba ku nekk. la ko jox war naa sell. la nga ko jox war naa sell. war naa laab. war naa taaru. ci barab bu mel nii nag. ci barab bu mel nii nag. ak jëf yu mel nii. ak jëf yu mel nii. ci la ñu war a waajale sunu bopp. ci la ñu war a waajale sunu bopp. ba li ñu yaakaar ci Serigne Touba. ba li ñu yaakaar ci Serigne Touba. ba jox ko sunu bopp. ba jox ko sunu bopp. mën a yayoo jox suñu bopp nu mën a yeyoo jox sunu bopp Serigne Touba. ku ne ci nun ku ne ci nun xam nga ci sa bopp sa digganteeg sa borom. xam nga ci sa bopp sa digganteeg sa borom. loo xam ne loo xam ni. bu doon yow dong. bu doon yow dong. sa borom sa digganteeg sëriñ bi. sa borom sa digganteeg sëriñ bi. gàttañ lu dana ca am lool waaye ngëneeli suñu borom ak yërmandeem moo tax mu boole noog sëriñ bi kon nan bàyyi xel ci jumaa yi ak ci daara ji ak jëf ju mel nii am ngeen nag lu jafe loo xam ni seeni maama ko liggéeyoon ak seeni waajur dox seen digganteeg Cheikh Mouhamadul Bachir muy dox ba agsi ci seeni loxo. la wàllu sëñ bés mi nekk ci loxoy sëñ Moussa. la la cay wàllu sëñ bés nekk ci loxoy sëñ Moussa. yilifa leen nam yili na leen sëriñ Basiru mu yilifa leen na leen sëriñ Basiru yilife woon. yaa ngi may léegi ne sëriñ Basiru dafa waxoon bi mu sancee dëkk bi. sëriñ Basiru dafa waxoon bi mu sancee dëkk bi. ñu ne ko mooy Daaru Jaw. ñu ne ko mooy Daaru Jaw. mu ne dee leen wax Daara Jaw. mu ne ko dee leen wax Daara Jaw. joxe lu ñu nangu. joxe lu ñu nangu. joxe ngir yàlla. joxe ngir yàlla. ñu nangu ko ngir yàlla. ñun ngi nangu ko ngir yàlla. rëy na lool. kon yàlla nu yàlla nangul. kon yàlla na nu yàlla nangul. jëf ji jëf ji. ak taalibe gi ak taalibe gi. te nu xam lu ñu bokk nu ànd ak sëriñ bi. te nu xam lu nu ànd ak sëriñ bi. ndax lépp lu ñu def ci lu baax. ndax lépp lu def ci lu baax. ñu xeeb ñu xeeb ko. fépp fu baax fépp fu baax. ñu mën faa jiitu ñu man faa jiitu. lépp luy diine lépp luy diine. ña koy taxawal. taalibey sëñ Tuubaa yi jiitu ci. loolu mooy siggi gi ñu mën a siggi suñu digganteeg suñu borom. mën a yeyoo. taalibe gii nu mënu booleeg sëriñ bi. kon nee na mi ngi sant ñëpp. seede na nag te xam ni Serigne Moussa seede na ni. addiye ji ngeen ko jox addiye ji ngeen ko jox. jënn addiye gënu ko rëy jënn addiye gënu ko rëy. dénkaat na leen ko dénkaat na leen ko. nit nag bu joxe addiye ñu dénkaat ko. nit nag bu joxee addiye ñu dénkaat ko ko. war na saa su nekk bu kilifa ga laajee addiye ji. war na saa su nekk bu kilifa ga laajee addiye ji. xam ne taxaw xam ni taxaw nañ ca. kon ni ngeen ciy taxawee. kon ni ngeen ciy taxawee. na xam ne bis ni na ngeen xam ne bis ni tey. jumaa ji jumaa ji. warugar la ci yéen. warugar la ci yéen. tabax gi doyut. tabax gi doyut. dundal ko mooy doy. dundal ko mooy doy. mooy sax. mooy sax. ba kenn ku ne ci ba kenn ku nekk ci yéen. jàpp ne moo war a dundal jumaa ji. jàpp moo war a dundal jumaa ji. te yar ci ak njabootam. ci ak ci góor ci góor. ak ci jigéen ak ci jigéen. rawatina njaboot gi rawatina njaboot gi. ndax mag ña kat. ndax mag ña suñu taxawutoon suñu taxawul woon. lii du egg si seen loxo lii du egg si ci seen loxo. ba ngeen namp ko. ba ngeen nàmp ko ba di ko def ba mën a taxawal lii ba pas-pas ba doxoon seen diggante ak sëriñ bi ba pas-pas ba doxoon seen diggante ak bi ngeen mën koo dundal ngeen mën koo dundal ba lii juddu ca tey kon nag am ngeenu sas yéen itam kon nag yéen itam am ngeenu sas ci njaboot gi ci njaboot gi jamono ji yàqu na lool te jamono ji yàqu na lool ku xoolul la sëriñ bi xooloon ku xoolul la bi xooloon bañ a doyloo dem ak sa muccuk bopp bañ a doyloo sa muccuk bopp ndax sëriñ bi bu ko boppam képp taxoon a jóg ndax sëriñ bi bu ko boppam dong taxoon a jóg kon dara kon dara du nu jar. kon nag nun itam. kon nag itam. kenn ku ne na am yitte. kenn ku ne na am yitte. la nga lamp la nga namp ci kilifa yi. la nga nampoon ci kilifa yi. ci lislaam ci lislaam. ci pas-pas ci pas-pas. nga nampal ko xale yi. nga nampal ko xale yi. ba bu ëllëgee. ba bu ëllëgee. seen taxawaay bii. seen taxawaay bii. ñu mën koo taxaw ñu mën koo taxaw. ba nii ngeen seeree ne. ba nii ngeen seeree ne. dig ba leen sëriñ Basiru digoon. dig ba leen sëriñ Basiru digoon. yéen yéen a ci ëppale ñoo ca yéen ci ëppale mag ña. dig boobee nag dig boobee nag. na ngeen xam ne seen njaboot gi. na ngeen xam ne seen njaboot gi. su ngeen leen taxawoo su ngeen leen taxawoo. ñoo leen cay ëppale yéen itam fuuf ndax sëñ Touba. li ko yàlla defal lépp li ko yàlla defal lépp. agsi na ba noppi agsi na ba noppi bis rek lay xaar bis rek lay xaar ak nit ñi ko war a soxla a kon nag nun la cay sunu wàll yal na nu yàlla taw feexale yal na jum ko mas a defal ci lislaam a te bëgg ko koo defal yal na nu yàlla jox xol ya jox ñu kattan ya jox ñu pas-pas ba jox ñu sellal ga ñoo ngi ñëpp kon nee na ñu ngi seeral ñëpp cant gi. li ñu fi gis itam. li ñu fi gis itam. ci taalibe yi ni ñu jaxasoo ak sunu bokk yi. ci ni ñu jaxasoo ak si yi. ak kilifa yi lislaam yi nekk ci tund wi. ak kilifa lislaam yi nekk ci tund wi. bu ko Serigne Moussa déggee. bu ko Serigne Moussa déggee. xelam dana gën dal xelam dana gën a dal. wan leen nit ne. wan leen itam ni. ni jëf ji nangu na ko. jëf ji nangu na ko. ci xolam. ci xolam. moo tax muy jël jëmmam. moo tax muy jël jëmmam. di ko fi indi di ko fi indi. waaye xam na ni raflewu leen dara. waaye xam na ni raflewu leen dara. ci lu jëm ci lislaam ci lu jëm ci lislaam. kon soññ rek la leen mën a def. kon soññ rek la leen mën a def. sant leen xam leen nangu na jëf ji. noo ngi ñaan yàlla nangu ko. jëf ju masee sa jëf. jëf ju masee sa jëf. ngir jëmmi sëriñ bi. jëf ji yàlla na ci jiitu. jëf ji yàlla na ci jiitu. ànd ngërëm. baroyaat ci ñëpp. barke Cheikhul Khadim wasalaamaaleykum wa rahmatulah ne ñëpp tàllal sëriñ bi ñaan. muy Tawfekh kenn xamul